sax mën nga déclencher révolution ci dëgg bi parce que les nerfs sont tendus il suffit que il suffit que kenn mm, mm. yëkëti ko rek ñëpp mouvance yëpp da daw top mm. mais raison pour laquelle aujourd'hui Sonko mi ngi ca kaso ba Sonko mi ngi ci kasso bi te tay nit ñi génn nañ manifesté wu kon nga xam ni mbir mi donte Sonko li mu joué ak li mu réussir mooy yàlla daf ko may discours am dugg ci xolu sénégalais yi nous accepté ko adhérer ko la bu c'est à magnifier mais le plus important moy nañ ci légui conscience yi mon bu ko hmm. néxone sax mission mat bu ko néxone dem parce que tout simplement mission na hmm. nak lañu japon ni bi Ousmane Sonko ko bi mi hmm. parce que Sonko a créé beaucoup de Sonko Ousmane Sonko a créé beaucoup de Sonko. Donc il a fait compris aux gens que ni. De fait, relever le niveau de conscience politique des jeunes sénégalais. C'est ce que Ousmane Sonko a réussi. Moi, je Sonko, bindul ay livre yu mais dafa tabac ay Sonko yu bari. c'est naka ay bañkat yu bari il discours Mais ce discours dont il a réussi. Euh, mais qui Sonko qui Sonko concrètement. Sonko c'est c'est c'est c'est le panafricanisme C'est celui qui a réussi aujourd'hui à implanter dans le cœur des Sénégalais un discours révolutionnaire dans le mm. sens où mm. mooy nañu révolutionné wu jëm par rapport ak luy gën a gën a sàmm suñu suñu suñu suñu suñu moomeel léegi discours boobu nag c'est un discours panafricaniste souverainiste mm. discours boobu moom la gëmloo Sénégalais yi te bi mu koy gëmloo Sénégalais yi dafa fekk également le Sénégal est dans un contexte où gis nañ suñu matière première yi ni mu doon génnee gis nañ la xaw ci sous région bi. gis nañ système de souffrance yu metti yi nga xamanteni ni yi Afrique dañ koy jël diko tek teg seen ay askan. ba mu doon jur léeg ay coup d'état ba mu doon jur ay coup d'état parce que coup d'état yi ngay gis ni yépp askan bu bu sonnu ñokoy déclencher askan wo xamanteni ni seen chef d'état yi amuñu yërmande ci ñoom bu ñu paree def li ñuy def CEDEAO protéger leen. mais Ousmane Sonko dafa faire la lecture dafa def la lecture de la situation surtout conjoncture africaine bi gis ni tey li Sénégal liko ko mën a ci su su ci jafé jafé yi mu nek c'est c'est c'est d'anéantir le système parce que système politique bi baxul et que le système politique da fay am différentes formes manam néna justice bi adminis l'administration judiciaire niñ ko yoré baxul benen bi néna na doxalé ci suñu walum économie baxul sur le plan social néna niñ ko yoré baxul lu béré béré béré muni baxul donc discours boobu la boy gëm capté ko ci mom tay diko doxal raison pour laquelle lu man le Sonko a créé beaucoup de Sonko même moom mi ngi mais tay boo yi ngay gis ni ko ci tay ab Sonko la ndax valeur yi Ousmane Sonko di di di di prôné moom la ñuy incarné ñoom ñëpp ñoom ñëpp moom donc Ousmane Sonko c'est un grand monsieur. qui a réussi moy li ma la wax à relever le niveau de conscience politique des jeunes sénégalais loolu lako yalla defal parce que géopolitique bi njëkku fi gënu fee rafet ndax ku fee jang ëpp fi xam-xam mm. mais nag loolu la ko yàlla defal mm. yàlla moo ko defal nii ko nag sa mm. discours moom la moom la moom la xale yi di di gën a copte parce que Sonko fekk na ñu bëri ci biir ci biir géew politique bi de fekk na ñu bari ci géew politique bi ñoo xam ñoo ko si njëkk foofu mais nag yàlla moom yàlla la mbiru yàlla la man mi mën naa xëy ëpp doole Sonko xam nga mën naa xëy fii suba suba suba ëpp ko doole loolu nag mbiru yàlla la mais nag li ko yàlla defal ci jamono yii ñu toll ci Sénégal gii actuellement nii ak ci Afrique donc ah, moom la ko defal donc loin de la vie euh, euh, moom mi ngi di dicté li nga que moo conditions. président Macky en tout cas euh, exactement Serigne ñu exactement itam par rapport à li nga xam que moo di de di li que modi justement des manifestation alors concrètement Serigne internet peut-être ni rare pour analyser est-ce que concrètement le président mexal dinal desuwaat rendre à l'évidence que ni sénégalais d'accord ñu par rapport à ce que nous avons fait, c'est-à-dire le report des élections une première depuis 1963 le président Macky Sall def exactement euh, faire ba passer li que article L31 devant li l'Assemblée nationale Étant tant étant et est-ce que le président Macky va sans doute euh, prendre conscience par rapport à ce euh, que nous avons dit, di kaaw peut-être le début de cas la mu ngi d'autres fii que nous nga xam le 15 décembre. président Macky Sall moo la gën a xam ni sénégalais ànduñu ci je mu bëgg a def moo la ko de xam. pourtant nous dafa jël une décision en consultant les parties prenantes. non mais nous avons un ay conseil économique ak nous le mais consultez vous le corps électoral. <laughs> c'est au c'est au non xam nga loolu tam mooy def lu la neex. Ah. xam nga mooy def lu neex aussi le corps électoral. bu ñuy hmm. wax en matière d'élection, le corps électoral moo tax ñuy wax. Hmm kon bu amé ñum wara waxtanal surtout nak avant mu doon jël décision bi dafa waron regrouper le corps électoral parce que ñoñu la mbir mi concerné quand même mom mo la gëna a xam ni li def teggu ko si yoon. Hmm. xam na ko xamna ko de xam ni Macky li def teggu ko si yoon le président Macky Sall du mo xey fi tas Sénat xanaa dañ ko faté mo xey fi tas Sénat ci tassine bo xam jaarul yoon te protocole additionnel bu CEDEAO nee na six mois avant les élections kenn warul laal processus électoral bi. ma ki ñëw dégager ñep sanni alors légui problème bi moy dama né ben sénégalais donc depuis fort longtemps président Macky Sall bëggoon reporter élection yi. jaaree euh, na c'est un scénario buñu tek teg. si euh, euh, si tas bi ñu tas Sénat équipe Doudou Ndoye et compagnie. non dama né la man dama sama question moy bo mom man maa koy posé ñëpp. moy hmm. lan la Macky di wër est-ce que mom mo bëgg ay trouble am ci réew mi pour mëna mën une caution démocratique pour gëna mëna mën ci réew mi. parce que dangay xool scénario bi ni mu demee. Hmm, Macky day jalgati yoon te day xam ni jalgati na yoon. yooyu c'est des questions mais lan lay wut est-ce que dafa bëgg mooy li wax léegi est-ce que dafa bëgg pousser les gens ñu yegg ak moom ci benn situation bu nga xamante ni moom daf ciy gën a mën a jafandiku indi ci réew mi ay trouble révolutionnaire nangam ak nangam ñu ni wax yaa di terrorisme lañ doon wax génne dossier terroriste yi ne wala li ma doon wax ngi nii yaa ngi fii ci réew mi. man sama question là lan la Macky di wut en faisant tout ça li nga xamanteni mom xamnañ li lepp c'est des violations de la loi. Hmm. gis nga ben sénégalais rek la la xoma sax ay sénégalais yu bàyyi. Hmm. mais ben sénégalais rek bu taxawone président Macky Sall ànduma ak yow ci li nga bëgg def Macky war na taxaw xolaat parce que sénégalais bob c'est un sénégalais c'est un sénégalais tay ndaw ñi nga gis sur le terrain bari na ci ñoo xamanteni ñom ñoko porter au pouvoir en 2012 ñoko xéxalona ah, bam taxaw falu et je pense que l'Union ñu en 2011 gëw comme pas Macky Sall donc il risque de sortir par la plus petite porte. par la plus petite porte contrairement à bi le président le mieux élu avec une majorité confortable. en 2012 en 2012 en 2012. Hmm. Sénégalais yi Top petit ci palais mais Macky Sall est entré aujourd'hui de laisser une cicatrice dans la démocratie sénégalaise. une tache noire. Hmm. ak xoolal li mu liggéey si réew mi li mu jot a def si réew mi. tey hmm. loolu yëpp mu ngi koy bëgg lan ndax lan ay caprice boppam. et que leen nit ñi waxul en réalité aussi man jàpp naa ni mbir mi li ko sooxal ba sooxal c'est la candidature de Diomaye Faye. voilà man gis na gëm naa li gën a anime Macky ci report bi c'est la candidature de Bassirou Diomaye Faye. si loolu président Macky jàpp nga ni dafa ragal. wala kon dafa jàpp ni candidat bu mu yóbbu euh, deful le poids face ak ki nga xam ne que moo di Bassirou Diomaye Faye qu'est-ce qui se passe concrètement man ragal naa te li sama njàngat jox Macky li ko gën a dynamique bi mooy jàll bi candidature bi Bassirou Diomaye Faye jàll parce que xam nga si moment boobu daf ko bett non bett na ko parce que ay nitam xam nga Macky ay nitam la am pour yebal mm. leen ci plateau yi mm. nitam yi doon toog ci plateau yëpp dañ doon wax ni képp ku bokk Pastef mënuloo bokk ci élection yi parce que dissoudre nañ Pastef. Hmm. xam nga ñooñu moom xamuñu loi. Hmm. xamuñu donc li article 57 sept alinéa 2. bi wax xamuñu ko. <laughs> ñooñu xamuñu loi même il y a hmm. des journalistes yu théoriser woon loolu. waaye da nga leen di jàppee ni xamuñu loi bi rek li loi bi wax. léegi bi démé demee ba ñu valider parce que Amadou Ba le mandataire de Pastef wax na ko. Bassirou Diomaye Faye dafa rëcc. ci ñu bare ñu bare li wax parce que Bassirou Diomaye